laata loolu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ndax yitte yi bëri na lool terewul nangu nga répondre ci suñu invitation bi lee jërëjëf euh, soxna si soxna soxna faatu donc ñoo ngi lay sant aussi euh, ba ngeen ñi mayee opportunité ñu mën a wax lu ñu xam euh, si yëfu jigéen mm-hmm. ndax lépp luñ si jublu rek moom mooy pour ñaax jigéen yi bañ gën a am comportement boo xam ne nañ mën a aar seen bopp aar seen seen seen jëkkër mm-hmm. wala aar seen partenaire ndax jigéen tey moom mooy moom mooy moom mooy yore société mm-hmm. su wéree rek daan société bi wér na jërëjëf. Mm-hmm. Euh, ñoo ko déggandoo apparemment il est entré dans le vif du sujet ñu tàmbale waxtaan bi rek daal di koy jagleel li nga xamante ne moom moo di maladie sexuellement transmissible wala ñu ko gën a xamee léegi ci infection sexuellement transmissible bokk ci li nga xamante ne def ci yëngatu bu baax a baax docteur à chaque fois dañuy dégg ñu naan infection sexuellement transmissible euh, ci yaatal boo ñu doon wax xeetu jàngoro yooyu lan nga ñu koy expliquer lan moo koy jox. waaw ah, d'accord soxna Fatou je pense que comme li muy wax toujours rek <clears throat> nit balaa ngay wax lu lu lu jaarul yoon da ngay xam lu jaar yoon ba pare. Mhm. ndax soo xame lu jaar yoon rek. lu jaarul yoon day daal di wane boppam nu mu gën a moo tax may toujours balaa ñuy si infection bi dañuy wax jigéen nan la bindoo mm-hmm. kanamam nan la bindoo mm-hmm. ak kanamam nekk mm-hmm. ak lu nekkul yoon pense suñu defee loolu rek dina leer si bopp jigéen yëpp ndax jigéen bëri ñoo ngi dem hôpital seen docteur naam dëgg la ñu seen docteur wala ñu tiit tiit boo xam ne jaru ko si biir émission suñu leen leeralee loolu yëpp dina tax au moins seen taxawaay dina gën transmissible léegi sax dafa mel ni appellation bi dafa changé ndax au lieu de maladie sexuellement transmissible ñu euh, yëngat ci wàllu wér yaram dañuy wax ñu xamle infection sexuellement transmissible ndax euh, moy ñoo wute wala euh, jàngoro yooyu mu concerné benn la pour démarrer waaw je pense que mooy euh, loolu terminologie rek je pense que avancé na sax léegi dañuy wax léegi infection génitale haute. Mm-hmm. dafa gën a soppeeku sax parce que bu njëkk dañoo jëloon lépp def ko si infection sexuellement transmissible dañuy wax mala infection génitale haute. Mm-hmm. parce que gis nañ ni yooyu mooy yoo xam ne daanaka euh, sa partenaire mën na la kaa jox wala am na loo def sa kanam ci bokkul et cetera. Mm-hmm. donc pour vous dire que définition bi day évoluer saa su ne. d' accord loolu mais bon balaa muy tàmbalee foofu. soxna Fatou ñëw si benn euh, nu ma ko léegi léegi si lu ma lu ma ko tàmbalee léegi. mooy jigéen nit la boo xam ne balaa muy gis euh, règle am daanaka moom ak góor leen wutee la bëriwul mm-hmm. ndax ñoo ñëpp peut-être seen seen seen i cër ni muy bindoo mooy wute mm-hmm. mais leen wutee la bëriwul mm-hmm. kañ ñuy commencé wute dëgg dëgg dëgg dëgg mooy suñ commencé dugg puberté puberté mooy am na ndox bi dox bi daw si yaram boo xam ne moom mooy tax lépp luy am mandaar mandaar ga jigéen day nekk si moom góor tamit ndox boobu daw si yaramam bu ñuy wax testostérone jigéen ñuy wax oestrogène moom mooy tax tam góor tamit mu am mandarga yëpp yuy tax muy mu mu mu mat góor mm-hmm. donc si mandarga yooyu si jigéen ween bi di génn mm-hmm. si kanamam tamit day soppeeku mm-hmm. si soppeeku boobu ndax ba nekkee xale kanamam mosul am ndox bu ciy génn amul dara ndax ndox bu nekk si xale bu jigéen bu tuuti rek dafa am lu ko waral. Mm-hmm. mais soo commencé jëm mag am si puberté li ñuy wax sa sa sa kanam li ñuy wax vagin bi day am propre écosystème mm-hmm. mooy loo xam ne moom mooy moom moo lay aar. ndax da lay xam na ni fu mu toll ni mot nga jigéen yaa ngi war dem si sëy yaa ngi war a gis say règles yaa ngi war a gis yaa ngi war a gis moom tam day jël ay matuwaayam mu créé environnement am. Mm-hmm. li ñuy wax écosystème vaginal. écosystème vaginal boobu ay microbes yu bëri ñoo ko constitué. microbes na yoo xam ne dafa am su déséquilibré rek mooy day joxe infection fekk infection bi jéggaane woo ko mais si yow la nekk donc loolu su demee ba tollu fenn comme ni ñu toujours soo jëlee quantité bi si chaque sécrétion vaginale day nekk cinq euh, cent millions à un milliard de de de de de de de petits microbes. Mm-hmm. pour vous dire que nu mu bëree si jigéen. bëri na mais nag si microbe yooyu yëpp dafa benn boo xam ne moo ci ëpp solo. bu ñuy woowee fleur de Döderlein mhm. fleur de Döderlein je pense nga ko loolu ay basi la yoo xam ne li ñu leen woowee lactobacille mhm. lactobacille mooy ñoom daanaka parce que soo jëlee jigéen kanamam vagin am dafa am benn lu ci lu ci nekk li ñuy woowee c'est cellules yi mooy cellules mooy lu ko constitué c'est très riche en glycogène mhm. léegi lactobacille dañ koy jël transformé ko daf ko acide lactique acide lactique mooy jigéen kanamam ndox bi day xaw a acide tuuti lu mu xaw acide noonu moom mooy tax yeneen microbe bi yëpp duñ mën a développé wu da leen leen rey de mais dañuy néew dañuy voilà dañuy néewal doole donc moom kanamam daanaka kon donc day xaw a tuuti moom moo tax yeneen microbe bi si nekk yëpp dañ di néewal doole mhm. bu créé benn équilibre entre ñoom ñëpp kenn du am doole loolu mi créé nag moo tax après tamit beneen microbe bu bëgg dugg tamit environnement pour nga développer wu mhm. donc ngeen gis ne kon jigéen c'est normal que kanamam moo am ndox mais ndox boobu tamit dafa fekk dafa am benn équilibre mhm. loolu lan lay jur si jigéen le plus souvent jigéen yi suñ tollee foofu ndox boobu ñu bëri dañ ko parfois dafa am ndox bi day bëri si ñoom parce que ndox boobu daanaka si ñett si ñett buntu lay jóge hmm. mën na jóge si vagin bi hmm. parce que vagin bi moom mooy def a des woowee desquamation moom mooy cellules yi dañuy dañuy chaque fois dañuy renouveler wu si renouveler wu ndox bi da koy raxas muy génn hmm. mun na jógee également si col bi également si en de col bi comme mën na jógee si glande yi glande skin ak glande Bartholin loolu si biir la nekk moom mooy tax jigéen moom mooy si sëy bi kanamam lépp ndox la voilà ce que je veux dire maintenant nag comme dafa toujours ñoom s'ils ont beaucoup d'hormones ndox boo dox si nag su bëree donc finalement ñoom sécrétion day bëri mm-hmm. su bëree si ñoom dañuy dem ba yaakaar ni infection la mm-hmm. fekk loolu du infection loolu nag dina bëri day mel ni comme soow mais lu ci neex mooy du am xet te sa kanam du xasan mm-hmm. donc loolu soo ko si si si sa doom nga gis mën a ndox bu bëri day sama kanam nga ne la mën a comme soow la mais li ko wutee nekkul comme soow bu woy de mm-hmm. comme soow bu ndoxe la comme on on est il est lactaisant donc si lactaisant yi doo am du du sa kanam du xasan doom am lu ci bokk nga ah, kon te loolu nag moo ngi day faral di gën a yokku moment boo xam ne da ngay waaj gis say règle moo mm-hmm. tax jigéen ba dañuy wax su nga waaj gis samay règle ndox bi day yokk c'est normal mm-hmm. parce que day day préparé soo paree gis sa règle tamit day raxas tamit ba mu set mm-hmm. donc loolu mooy euh, euh, loolu mooy ndox bu bëri bi boo xam ne dafa nekk si jigéen boo xam ne parfois mën na ëllëg seen xel mais fekk na du infection soo déggee infection si jigéen c'est toujours sa àndeek beneen signe lu ci mel ni lu sa kanam di xasan saw yi di tàng ngay sëy sëy di metti wala mu am benn odeur bu particulière mhm. loolu mooy loo xam ne en dehors perte bi am na lu ci yokk lool chaque fois soo gisee leneen lu ci yokk rek sa xel na jàpp ne effectivement am na infection bu nekk sa kanam mhm. léegi infection yooyu nag lan moo koy waral sa jigéen le plus souvent li mhm. ñuy wax cause yi bari na trop mais dafa am benn boo xam ne dañ ciy bàyyi xel boo xam ne vraiment lu mu la waxoon sànq bàyyi ci xel soxna faatu moom mooy jigéen dafa am ay bactéries yu bëri yu nekk si moom te bactéries bactéries yooyu moom mooy euh, gàncax bi dafa ànd ay microbes microbe dañoo nekk en équilibre mooy kenn ëppul sa morom doole. léegi mhm. nag jigéen yu bëri nekkee si buumu sëy dañuy ñoo xam ne loolu da leen di déranger te foog ñu am sa jigéen bu nekk am sa odeur. Mhm. odeur boobu parce que microbe yooyu lactobacille day am benn odeur doo muy joxe parfois day déranger jigéen ñi on les comprend ndax seet bu bëri. léegi tax tax ñuy raxas seen kanam raxas dañ koy raxas ak suñu saabu ordinaire yi saabu yi ay détergent la léegi yow lu ma lu soo seetlul baax yow nga am gàncax boo xam ni dafa nar mm-hmm. mu lay aar nga koy raxas di ko wàññi di ko raxas di ko wàññi di ko raxas di ko wàññi di ko raxas ba mu wàññi da ngeen ba benn moment gàncax bi dafa nekkat mm-hmm. day mel ni tool boo xam ne wala kër boo xam ne amatul bunt mm-hmm. waaye léegi kër boo amul bunt amul tool fu neex waay jaar muy indi la infection yoo xam ni vraiment da nga koy faj fu ne du wér nga xam ne dem naa fu ne faj naa sama infection mu dul wér loolu la ñuy waxee infection génitale chronique wala boog soo koy raxas lu bëri da ngay déséquilibrer flore bi. Mhm. mooy dafa am yoo xam dañoo néewoon ñoom dañ si jaaree am doole te booboo gën a bëri si jeune fille yi. moom mooy infection à candidose mooy yoo xam ne da ngay xees kanam di xasam. Mhm. infection boo xam ne c'est sexuellement transmissible infection la boo xam ne dafa bokk si yow mais gàncax boobu déséquilibre bu nga yàq moom moo tax mu manifesté wu. Mhm. ñun ba dañuy wax noonu non man soo amee perte rek parce que IST la nekkul perte yoo xam ne c'est lié lu ko lu lu lu lu koy waral. Mhm. moom mooy sa kanam gàncax bi moom moo déséquilibré. Mhm. ak yoo xam ne nag vraiment loolu da nga kaa jéggaane. Mhm. donc ñooñu dafa dafa dafa jar ñu bàyyi xel. donc jigéen la ma wax toujours raxas sa kanam bu bëri nga yaakaar ne yaa ngi set da ngay de wax ma ne setoo de di nga set setu voilà euh, dalal lu ma dalal sa xel ngay def. mais fekk ne yaa ngi yàq loo xam ne ëllëg ci biir mën na laa indil ay jafe-jafe yoo xam ne ndax gàncax boobu si perturbé wu. infection di lay yomb mhm. infection si la yombee infection opportuniste dañuy dugg aussi yoo xam dafa nekk si yow mhm. te yooyu nag mën na dem ba jur feebar yoo xam ni vraiment mën na laa indil ay gàllankoor yoo xam ne si sa am doom wala si leneen loo xam ne vraiment je pense que nekkul ñaanal ci benn jigéen ndax ñun tey ñun lu ñu tax a jug tey moom mooy bépp jigéen bu judd màgg am jëkkër am doom mhm. donc moo tax ñuy jigéen chaque fois soo demee ba toll gis ba commencé gis say règles ba toll foofu dafa baax nga dem laajte conseil sa gynécologue kooku moo la ak ban rythme ngay raxasee sa kanam nooy raxasee sa kanam yan produit ngay utiliser nan ngay def ak ban moment su la expliqué da ngay si saa après yow apport boobu da lay bu baax. parce que toujours da lay dimbali pour nga xam sa bopp mhm. ndax tey loolu mooy suñu problème jigéen bëri ñoo si euh, même ñu jàng ñu bëri xamuñu seen yaram mhm. donc objectif bi consultation nekkul seulement dem si médecin bi mu xool la parfois conseil mu lay jox dalay dimbali bu baax dalay dimbali sa vie mhm. je pense que mën nañ euh, yem foofu le temps que ñuy infection yi euh, wax nga ko ah nekk ci dans les liens du mariage pour certainement di def ay consultation gynécologue pour xool sa yaram mais mu mel ni suñu société bi formaté wuñ ñu loolu par exemple benn Fatou Baba Fall amul jëkkër Euh, bu nee tey dama demoon rendez-vous ci sama gynécologue automatiquement gars yi seen xel yi dafa am leen lu muy jàpp kooku euh, côté boobu aussi ndax jàppaloo ne war nañu gën a mën a mettre plus la sensibilisation et du côté ci médecin yi ci bàjjenu gox yi ba ci au sein donc ci socle familial bi ñu xam ne comme tu l'as si bien dit hein au cours de l'émission jigéen dawi nekk xale day màgg màgg bi ngay màgg nag dafa am ay sen dafa am nu muy manifester wu y compris sa ce ce développement morphologie ba ci sa kanam comme ni nga ko waxee. Mhm. waaw tout à fait euh, soxna Fatou soxna Fatou Baba Fall je que vraiment soxna Baba Fall macha allah. Ah. donc euh, voilà comme ni nga ko toujours je pense que li ñu wax toujours euh, société bi lu bëri lañ ka war a defar. Mhm. de waxuñu ko ngir jiyéene soppeeku. Mhm. mais dañ di dimbali en fait parce que xam-xam dafa nangu lépp xam-xam bu sell li ñuy wax ni tey. parce que tey euh, lu may wax société bi soo sa doom si sëy te amul doom si sëy bi vraiment day sëy bi day sooxe. Mm-hmm. yaay ji da ngay jaaxle. Mm-hmm. yow mi yow mi yaay bi yow mi xëyoon bañ bu dem seeti gynécologue ba mu nekkee jeune fille yow yaa ngi koy yóbbu si gynécologue mm-hmm. te gynécologue da lay wax tout temps dafa def infection boo xam ne dafa bouché trompe yi dafa chronique trompe yi yàqu na wala kanam nu mel nii et cetera wala am doom sax trompe yi dafa am nu muy bouché dafa am fu muy bouché dina lii kenn mënu kaa defar. te infection moo ko infection yi tranche d'âge bu gën a fréquent c'est entre quinze et vingt cinq ans quinze et vingt cinq ans seetlu nañu ñoom ñëpp moment boobu la ñuy si jigéen ñi moment boobu la ñuy am infection boobu infection yi ngay woowee IST wax na si ñëw bu baax uh-huh. donc vous voyez kon donc entre tranche d'âge tranche d'âge quinze vingt cinq ans parce que tey ñu wax ko ñu bañ kaa wax sëy xale yi ñoo ngi sëy uh-huh. ñu bëgg ñu wax ko ñu bañ kaa wax si réalité la boo xam ne dañ koy dañ koy nangu uh-huh. donc loolu tamit su si nekkee je pense que yow parent bi xamoo sa doom ndax mënoo kaa maîtriser mais lu nga mën rek mooy indi ko conseil yoo xam ne apport yoo xam ne da koy amal njëriñ mm-hmm. mooy c'est-à-dire fu mu toll si yaramam ñu waxtaan moom parce que yow mi yaay ji gynécologue te wóolu nga ko kon donc comme wóolu nga sa gynécologue sa doom toll na foofu nga jàpp nga kañ dem sama gynécologue je pense que kooku déjà rapport de confiance day daal établir mm-hmm. doom bi dina la dina déjà day indi genre Euh, da nga koy da nga si saa si moo xam ne maag sama yaay ñëw bokk médecin mm. xam nga day day day day day day day day gagné en confiance xam ne nit la boo xam ne deful dara yaayam lu bon kon donc nekkul koo da koy def lu bon aussi je pense que paramètre yëpp da koy dimbali dafay tax ëllëg ci biir sëyam aussi da dimbali bu baax a baax parce que te ni wax ko bañ kaa infertilité bi ñàkk am doom bi tas na couple yu bëri te vraiment nekkul lu ñuy ñaan. Mhm. Mm. d'accord euh, xuus ci waxtaan wi nag euh, jóge ci li nga xamante ne moom moo di infection yi soxal soxna yi daal di nag dugg ci ordre du jour bi waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum infection sexuellement transmissible wax nga ko ci wàllu jigéen yi mais ni muy la laalee jigéen amaana ma noonu lay laalee góor boo demee sax ñoo bokk tranche d'âge bi comme ni nga ko waxee mais tey jii docteur Diarra bu ñuy wax infection sexuellement transmissible am nañ fi hépatite B am nañ fi chaude pisse ak yeneen ak yeneen ah yoo xamante ne moo gën a bëri VIH bi mu ngi fii entre autres tey jii lan mooy cause principale ou infection sexuellement transmissible euh, pour commencer. voilà donc euh, soxna Fatou dañ lay sant encore la gërëm tey comme nu mu bon soo waxee infection infection sexuellement transmise ma damay wax infection génitale haute mhm. pour tàmmal la ko pour te dëkk définition bi dafa évoluer comme ni la ko waxee léegi mooy foog nga xam ne infection a fréq ba gën a fréquente yoo xam ne moo si boo xam ne dafa nekk si jigéen mhm. loolu moo perturbé wu moo tax infection yi gën a fréquente mhm. te infection yooyu dañ leen wooyee infection génitale basse mooy ñoom si vagin bi rek la ñuy yem. Mhm. du ñu yéeg. Mhm. léegi si ñuy wax infection trans infection sexuellement transmissible parce que yooyu mooy yoo xam ni. Mhm. jigéen da koy jéggaane. cest à que c'est soo jëlee lu koy joxe mooy lépp loo xam ni bokkuloon si nit ki def nañ ko ci moom. pour tënk. loo xam ne bokkuloon si moom def na ko ci boppam. suñ jëlee moom tubaab lay waxee toujours manœuvre endo-utérine endo-utérine moom mooy si biir utérus bi def nañ ci ay ay yëngute yoo xam ne bokkuloon si ko jigéen gi. léegi soo jëlee léegi suñ ko tënkee infection boobu soo xoolee parce que dafa am lu ñuy glaire cervicale glaire cervicale mooy ndox boo xam ne dafa mel ni laalo boo xam ne jigéen si nekkee période euh, ovulation day gis ndox mm-hmm. ndox boobu da koy protéger loolu moo nekk si buntu butitu njurukaay bi moo tax lépp lu ñëw infection bu ñëw da koy génne loolu day day donc infection yi mën nañoo yem si vagin si kanamu ko jigéen ke fekk duñ yéeg yaa ngi may dégg nag lan moo koy yéeglu di koy yëgloo borom loxo borom moo ngi ci loolu la ñuy wax soit c'est des manœuvres endocrines ou bien se les rapports sexuels. Mm-hmm. ndax tey sooy def rapport sexuel ku góor ki ni muy defee rapport day pousse germes yi ñu dugg si biir col bi. Mm-hmm. parce que c'est des de va et de vient. Mm-hmm. donc boobu da si infection fu mu yemoon ngi dégg même su nekkee ko ki mën na ka jox aussi mais facilement day dugg aussi ou bien les manœuvres endoutérines tey mooy comme su ma jëlee tey euh, interruption volontaire de grossesse xam xam xam nga ko. Mhm. moom mooy avortement boo xam ne da ngaa ëmb boo kenn yëg ko wala euh, nga yàq si anam yoo xam ne médecine nangu ko médecine nangu parce que mhm. nag il faut ñu nangu dafa am ñaar Sénégal dafa am yoo xam ne c'est thérapeutique yoo xam ne dañ kaa médicalisé non pas médicalisé thérapeutique. parce que ñu waxee médicalisé loolu leneen la thérapeutique mooy man mii médecin mooy tey cancérologue gis benn jigéen. moom feebar boo xam ne xam naa mën na kaa lor mm. ba bi si si continuer ñu waxtaan ci mm-hmm. suñ si waxtaanee yóbbu ko si loxo médecin légiste ko man ne ma duma duma ko def damay bind kayit jox ko médecin légiste médecin légiste bi validé su ko validé aussi peut-être mu egg si loxo procureur mu wàccaat te man mii bind kayit bi man mii duma ko def Mm-hmm. beneen hôpital lañ koy yóbbu ne nangu lañu def ko kook moo koy def pour vous dire que kon donc combien de fois c'est protégé ici voilà trace bi day day àgg loolu mooy euh, voilà avortement thérapeutique mm-hmm. danaa rek dafa am avortement boo xam ne ñu bëgg ko ñu bañ ko nit yaa ngi wax dafa bëri dafa bëri Sénégal mm-hmm. mooy avortement clandestin soo koy def xamoo yéen condition koy def nit ku defal est-ce que respecté na mesure yëpp donc li def sa kanam xamoo lan la ba mu ko defee pare ndax jox la garab yoo xam ne day tax doo am infection te yooyu infection yi si gën a bëri daanaka moom yow fu ngay fu doom bi fu muy nekk foofu lay egg directement te maa ngi la yeneen infection si vagin bi la ñuy yem mhm. mais boobu loo tax ñu koy woowee infection génitale haute mhm. dafa si dafa yéeg mhm. si kaw ci kaw nag daanaka moo si biir utérus bi mooy buti du njurukaay bi su jàllee foofu mën na jàll si trompe yi trompe yi moom mooy euh, nen ku jigéen ki ak ku góor ki fu ñuy tasee pour ëmb mën a am su jàppee foofu mën na créer mën na kaa bouché waaye yaa xayti soxna Fatou su nekkee nen ko góor fekk jigéen fu ñu tasee foofu bouché ba est-ce que ëmb na fa am donc yaakaaruma ko mhm. donc loolu mooy yenn cause yi suñu toppee yeneen cause yi aussi moom mooy soo jëlee euh, nga ñëw nga def avortement médecin dafa le curtage nga may raxas sa biir loolu tam mën na kaa joxe aussi suñ jëlee suñ toyee cause yi toujours mooy nga wasin ba pare ànd bi bañ a génn médecin bi jëlee ànd bi ak loxoom. Mhm. li ñuy wax li ñuy wax délivrance artificielle suñu jëlee toujours si cause yi mooy nga nga nga nga wasin ba pare ngay xëpp deret bu bëri. médecin bi dugal loxoom mooy hémorragie voilà mhm. médecin bi mën a il est day obligé nettoyer utérus ba mu set a nekk cause yi aussi mhm. suñ jëlee cause yi aussi benn boo xam ne jigéen dañ koy def moom mooy DU dispositif intra-utérin sooy def planification planification familiale mën a nekk si cause yi moo tax dañuy jigéen soo defee DU nga seetlu da am ay perte perte ba pare mu am yeneen signes yu si àndal dañuy wax dindi ko bul toog bi non demal dindi déwi bi mm-hmm. ndax déwi bi bul fàtte du fekk lu bokkul si lañ def si yow toujours dama la koy wax sànq mm-hmm. loolu moo dañ kaa indi si yow mm-hmm. mu fekk ne nga amoon infection boobu donc da koy gën a yokk te du ci yem également da koy day day téye microbe yi uñ nekk tant que dindi woo ko du sedd te loolu mën na dem ba juróla yeneen feebar yoo xam ne ay biir yi metti nga xam ne du sedd ñu di abdominal chronique nga defee di ba léegi sa biir day métti mm-hmm. wala nga am wala nga xëy saw wala nga dem sa sa sa côté droit bi mooy côté foie mi xaw a métti nga sam côté foie bay métti fekk infection bi day yéeg foofu médecin xam nañ ko mm-hmm. moom la ñuy woowee périhépatique mm-hmm. ou bien syndrome de Fick ak euh, Curtis Mm-hmm. voilà. Euh, docteur ñu bëggoon xam rek ndax euh, ni ko jigéen ji amee eh, ban différence la lañ koy amee moo xam ku góor ki ak ku jigéen ki développé développé nga ñu bu dee ku jigéen ki lan mooy mooy exposé le plus souvent aux infections génitales hautes euh, ku góor ki lan lan lan lan la ñu jàpp ne moom mooy koy mooy expliqué ne yen saay muy am yooyu les infections. waaw ah, d' accord xam nga loolu euh, merci de la question parce que dañuy yaakaar toujours que feebar feebar jigéen la. Mm-hmm. su ñu infection sexuellement transmissible c' parce que dafa nekk si góor ki mën a jaar si jigéen ki nekk si jigéen ki mën a jaar si góor ki lan mooy infection sexuellement transmissible léegi nag différence entre góor ak jigéen foog ñu koy leeral. Mm-hmm. parce que ñu ko mooy jigéen moom vagin bi muqueuse la muqueuse moom mooy li may wax toujours damay tooñee nit yi ma ne mooy comme tey sa gémmiñ. Mm-hmm. comme tey sa gémmiñ li toujours xale. liir bi naam gémmiñ du am xet ñëpp seetlu mhm. parce que lu tax parce que lu fiy dugg lu naturel la. Mhm. soow yaayam c'est le naturel qui rentre dans naturel moo tax doom xale tant que commencé wu lekk du am xet gémmiñ te ñun ñëpp suñu yeewoo chaque jour foog ñu brosse seen gémmiñ soxna Fatou lu mhm. tax ñu koy brosse. ndax dañ ciy dugal loo xam ne vraiment bokkul si ñun. jigéen tamit su demee ba toll si sëy aussi kanamam da ciy dugal loo xam ne bokkul ci moom. moom moo tax jigéen chaque fois mu war a ngi dégg donc donc infection ba comme li nga wax toujours mën nekk si góor comme mën na nekk si jigéen. Mm-hmm. si góor tamit jigéen kanamam moo gën oyof kanamu góor. Mm-hmm. ndax kanamu góor comme der la. Mm-hmm. jigéen kanamam comme gémmiñ la foofu mu koy toppatoo saa si dafa fragile. góor kanamam comme deer la. ndax soo xoolee lépp der la sax soo soo seetoo kon donc l'homme est plus protégé parce que suñ une première barrière naturelle de défense la peau. alors que góor kanam moom der moo ko constitué mm-hmm. donc moo tax moom barrière dafa am défense naturelle bu nekk si moom mm-hmm. n'empêche ça veut pas dire du ko def mm-hmm. mën na kaa def su ko defee nag boobu dafa fekk infection bi yàgg ci moom si yàgg si moom ni muy manifesté woo moom mooy soit day saw mi soit day day day day day comme jigéen nga gis muy jigéen day démangeaison pour bañ a wax fa tubaab donc day wokkatu da ngay góor xam dañuy fa tool fi ñu toll rek ñoo ngi wokk seen kanam démangeaison yi loolu déjà signe d'appel la wala mu xëy ndox di génn si ndox mm-hmm. comme ni nga wax sànq pour bañ a wax tubaab rek mooy ndox di génn moo am écoulement génital moom tamit comme jigéen mm-hmm. loolu tamit benn signe la wala mu xëy saw yi di aussi saw si tàng aussi loolu tamit beneen signe la wala mu am benn rougeur nga gis kanam bi muy xoolee ko mu mel ne lu am góom mm-hmm. ñoo na ah kii kat xam lu norm xam loolu normal voilà donc si soo seetlu si góor moom wala mu am ay picc soo gisee rek xamal ne ko góor ki am na feebar bi su nekkee sa jëkkër la wax ma la kii mais au moins pour nga aar sa bopp pour aar ko da ngay ne alaaji nañ def des rapports yoo xam ne mooy tu vas te protéger cest à yow utiliser loo xam ne da lay protéger le temps que nga faj ba wér mm-hmm. yow mi jigéen bi aussi yow tamit nga bàyyi xel sa bopp ndaxte bàyyi si xel lu ma lay wax toujours mm-hmm. jigéen moo gën moo gën a exposé moo gën a exposé góor mm-hmm. donc je pense que loolu baax ñu leeral ko donc góor da koy def da koy def mais jigéen moo gën a exposé góor infection sexuellement transmissible par ailleurs xam ne kon donc les hommes le plus souvent c'est des Mm-hmm. vecteur mooy ñoo xam ne dañuy am feebar bi di wu te dañ koy mën a joxe facilement. Mm-hmm. Euh, non seulement dañ koy mën a joxe facilement mais amaanaama sax euh, dañ koy wàllante ci seen biir te euh, kenn du ko xam mm-hmm. wala kenn du nangu endosser la responsabilité bokk na ci infection génitale haute docteur yi ci gën a fës wax naa ko sànq am na chaude-pisse ak VIH ak syphilis mais tamit dafa mel ni am na boo xamante ne bokk na ci mu di hépatite B. hépatite B mu nekk bu nga xamante ne certainement dangerosité am kenn dootu ko expliquer mais mu mel ni on ne met pas l'accent si si si si si maladie boobu te pourtant bokk na ci infection génitale haute yi donte dañuy wax euh, dafa bokk ci maladie de la foie wala bu ma juumee nga gàgganti ma. waaw c'est ça donc je pense <laughs> soxna Fatou jërëjëf je pense que hépatite B c'est vrai que dafa ëllëg xel yu bëri macha allah heureusement Sénégal am nañu programme boo xam ne mooy seen programme PEV bi. Mm-hmm. dugal nañ ci je pense que donc. Euh, xale yëpp ñu vacciné woo ñoo ngi leen di ñaax ñuy vacciné wu mhm. fii ak euh, fukki at wala ko ëpp daanaka dina jeex Sénégal incha mhm. allah xale yëpp suñu vacciné woo mhm. mais n'empêche tey ñun dañu dañoo bokk si génération boo xam ne amuñu chance boobu amuñu chance boobu moo tax tey tam ñu war a ñu ñu war seen taxawaay bu baax hépatite B effectivement feebar bu day waar la ñu bëri duñ ko bàyyi sax se transmet par la salive aussi. Mm-hmm. fóonante bi rek mën na kaa joxe salive bi. Mm-hmm. ñu bëri mais nag bi dafa dafa dafa dafa mais ça peut se transmettre par la salive mm-hmm. mais alors même si ça se par voie sexuelle moom duñ ko boole si infection génitale haute yi. parce que infection génitale haute mooy infection boo xam ne te jàpp utérus bi jàpp euh, trompe yi jàpp ovaire yi. jàpp col bi. si yow lañ koy donc c'est une infection sexuellement infection génitale auti mhm. c'est comme tey VIH c'est une infection sexuellement transmissible mais bokkul ci infection génitale auti mhm. yaa ngi mhm. donc suñ ko loolu pour faire la différence la pour dire effectivement il y a beaucoup d'infections sexuellement transmissibles qui passent en fait dafa am na am na bëri yoo xam ne euh, si sëy lañ ko si si si sëy koy amee mais taxul muy sonal euh, taxul mu sonal butitu njurukaay ku jigéen ki donc loolu dafa baax ñu leeral ko maintenant nag suñu jëlee comme li wax léeg-léeg de piste ak yi mais bu si gën a bu si si bu si gën a yéeme si infection génitale haute yi moom mooy infection à chlamydia chlamydia mooy benn microbe boo xam ne li ma koy wax la koy wax si dugg jigéen ñi li ñu si ëpp entre quinze et vingt cinq ans mm-hmm. leen di dugg la boo xam ne du wane boppam soxna Fatou. dafa asymptomatique. merci wax nga ko asymptomatique si olof mooy du wane boppam si dara day nekk si yow di yàq li muy yàq te du wane dara. Mm-hmm. yenn saa no noo ko mën a xamee sa sa yaram a tàng tuuti bàyyi yow wala sa nakk di métti saa su ne mm-hmm. wala nga xëy saw yi tàng wala nga xëy nga xaw a nga def saignement yu ndaw yoo xam ne bokkul ak parce que su col bi lay aw day créer lu ñuy wax cervicite mm-hmm. dem jàpp utérus bi nga gis ay saignement yu bokkul ak règle ki xaw a kii sa biir di métti ah man kat dégg naa docteur Diarra nee na. Mhm. su ma gisee am ay métrorragie mooy saignement yoo xam ne may xëpp deret boo ne bokkul ak sama règle te sama biir di metti naa bàyyi xel ne effectivement est que nekk mun def nekk nekk mun def infection boobu. donc mhm. infection chlamydia donc loolu li muy def mooy su jigee si col bi si buntu butitu njurukaay bi di dugg si biir butit di dugg si biir butitu njurukaay bi jigéen foofu mu dem jàpp foo xam ne sànq maa ngi la koy wax mënuñu ko góor ki ak jigéen fu ñu tasee moom mooy trompe bi. Mhm. su jàppee foofu da lay créer li ñuy woowee salpingite. salpingine mooy trompe yi day metti bu baax yenn saa de côté nga koy soofantal nga dem si médecin yi ay yeneen garab yu ndaw boobu mu dem ba créer salpingine chronique mhm. mën na dem sax ba mu defal la benn pelvis péritonite ou bien benn péritonite médecin xam nañu wax mooy mu créer dëtt bu bëri sa biir bi dëtt bi xëy sotteeku sa biir bi loolu dafa ñu opérer ko dindi ko sinon rek mën na la faagaagal boobu mhm. bu di que donc nekkul infection bu ndaw tranché boobu lay dem na sax ba si tuberculose tuberculose dafa bokk si maladie sexuellement transmissible tuberculose benn am na tuberculose urogénitale jigéen dañ koy am mu jaar seen kanam mu jaaree foofu ba empêché leen am doom. mais docteur xanaa boobu nit yi xamuñu ko tuberculose jàpp nañ ne peut tux wala nga nekk ci benn endroit boo xamante ne. Eh, dafa am promiscuité entre autres. information bu bëri on l'accent sur ça. waaw mais moom. waaw lu bees la. waaw <laughs> loolu la donc day am tuberculose donc urogénitale am na. Mhm. donc euh, nu amee si jigéen day am noonu si góor. yamu ci aussi ba si bilharziose bilharziose bii ngay gis ni bornu jigéen dañuy nekk côté fleuve bi di fa sangu day xëy ba dem yéeg ba si kaw ba yàq seen trompe yi pour di kon donc pour dire que microbe bu nekk mën na jàll. te su jàllee li muy def toujours moom mooy day yàq trompe yi la am doom. Mm-hmm. donc vous voyez un peu que ça fait donc infection sexuellement transmissible comme ni nga ko dafa bëri cause. Mm-hmm. mais cause yi ñu si gën a jàpp mooy yoo xam ne mu boo xam ne da koy am te du wane boppam. Mm-hmm. balaa nga xam ne wane boppam nga dem sëy soo demee sëy nga def nga sëy ñaari at amoo doom nga seetu médecin bi mu ne la ah yoo de sa bëti njurukaay bi lu ci lu ci topp loolu yàqu la. te yàqute boobu parfois na wax a la tuuti na jàpp loo xam ne parfois. dañuy wax ni c'est une stérilité définitive mm-hmm. doo mën a amaat doom mm-hmm. kon donc xam nga loolu kon donc dama xool médecin bi mu teel laa jàppale jox la ay garab ba nga loolu mu nga bañ faa egg je pense que loolu dara du ko wecce mm-hmm. yaay yi tamit ñu bàyyi si xel bu baax a a dañuy jàppale seen doom yi nekkul ne képp ku dem si gynécologue def kat lu bon nga dee dee dee du da ngay préparer sa doom ci biir mu xam yaramam gynécologue bi teel kaa xam jàppale ko ba du am feebar yoo xam ne ëllëg bi su duggee si buumu sëy nag indi la ay problème mhm. euh, docteur Diarra mu mel ni li nga xamante ne moom moo di infection génitale haute yi am na ay conséquences yoo xamante mun na jéggi na parce que wax nga fi léegi ñoo xamante dinañ dem ba seen trompe am na ñoo xamante mun nañ dem euh, Euh, subir opération euh, lool ci wàllu ku jigéen ki la je suppose bu dee ci ku góor ki nag ndax aussi am na ay conséquences yu mu ko mën a jural par rapport ak euh, fertilité ma wala par rapport ak par rapport ak fertilité waaw loolu je pense que loolu góor nag si moins li muy wax xam nga góor moom <laughs> non vraiment les femmes sont exposées. non non non c'est que comme bindu borom bi moom ñun amuñu luñ ciy wax ñun dañuy dañuy dañuy seetlu rek. Uh-huh. di def di jël ay matuwaay yoo xam ne ku nekk je pense que da lay dimbali. Uh-huh. je que pour les hommes loolu je pense que y moyen de complication. même si par ailleurs am na ci mais c'est moins fréquent les hommes que chez les femmes maa ngi pour wax ko si wolof mm-hmm. si jigéen ñi la ëppee mm-hmm. que si góor yi mm-hmm. parce góor yi soo xoolee seen seen seen seen ñàkk am doom ñaari ci ëpp mooy soit dañoo am li ñuy woowee varicocèle sel mooy ñoom seen ndox fa muy aw ba génn foofu tuyau bi muy jaar dafa am beneen tuyau bu koy xaw bu koy xaw a xatal. Mm-hmm. donc maniou di maniou di ñëw comme numéro ñëwee. Mm-hmm. donc loolu mooy varicocèle donc lool suñ ko opéré daanaka lotissement day bàyyi. Mm-hmm. wala boog seen euh, maniou fi muy jógee daanaka baaxul li ñuy waxee azoosperme te boobu lotissement boobu c'est définitive moo tax li may toujours euh, ñàkk am doom su góor la gën a métti ko su ko ci jigéen ndax góor bu bëri su ñu mënoo am doom. le plus souvent c'est irréversible mhm. or que si jigéen le plus souvent soo xoolee si nga faj rek day mhm. moo tax kon donc soo xoolee nga wax encore les femmes donc vous voyez que les femmes ont plus de <laughs> euh, ñu fàttee ni ñu bëri ci suñu góor yi ne ñoom xam nañ ne ñàkk am doom bi ci ñoom la mhm. mais euh, c'est la société bu fekkente ne da nga dem ñu détecté la da nga feebar ak affaire yooyu dafa mel ni psychologiquement ak mentalement dafa am lu muy wàññi moo tax de a yenn góor yi ñi ma ko sañ wax dañuy xam ne ñoom le mal provient d'eux mais dañuy bàyyi seen jabar ñuy dem di def ay consultation génétique à n'en plus finir am na ñoo xamante ne perdre nañu ay millions et des millions ci ay maamani te pourtant les hommes sont conscients que ne le mal provient d'eux bon boobu c'était juste une parenthèse ah docteur Diarra dañuy xuus ci waxtaan yu ah mënuñu wax li nga xamante ne moom moo soxal euh, maladie maladie infection sexuellement transmissible te duñu mooy intimité de la femme xam nañ ko euh, suñu société bi dafa am ñu ñu bindoo quand on parle de femme mariée mhm. bon séduction par si séduction par la ba yenn saa sax ñu def ay comportement yoo xamante ne du nekk en phase avec les normes ndax euh, lu ni aussi du am ay conséquences sanitaires euh, particulièrement ci ku jigéen ki laata ñuy xuus ci yenn ak yu ñu utiliser ah d' accord ok soxna Fatou loolu je pense que naa si sawar a tontu trop trop trop trop euh, concernant li nga wax jigéen la ñuy utiliser pour neexal seen sëy mm-hmm. donc c' est tout fait normal parce que Sénégal lañ nekk donc euh, dañoo am suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy réalité ak ak ak suñuy pratique yoo xam ne ñun jiitu na suñuy jutu donc mais comme on dit tout ce qui est culturel y a une partie de bon une partie de mauvais donc plus xam-xam di dem xam-xam xam xam-xam day leeral mm-hmm. xam-xam day dindi lëndëm mm-hmm. day wàññi lëndëm te day leeral wala day defar parce mm-hmm. que loolu lañ foofu foofu lañ par ricochet ma ñëw si benn question pour wax effectivement affaire de infertilité bi foog jigéen ñi ak góor yi xam ne cause bi li koy waral vingt cinq pour cent jigéen la vingt cinq pour cent góor vingt cinq pour cent le couple et vingt cinq pour cent de cause inconnue donc foog góor yi xam loolu. Mhm. donc moo tax chaque fois suñuy def dañu def consultation du couple soo ñëwee dañuy xool ko góor ki xool ko jigéen ki. Mhm. xool leen ñaar ñoom ñaar ñëpp. Mhm. foog ñu bàyyi si xel donc feebaru góor nekkul feebaru jigéen. feebaru couple la. donc ku góor muy xoolee yaramam ku jigéen ki la war a xoolee yaramam comme man nag comme ni nga ñu temps seetlu nañ ne beaucoup y a beaucoup d'infertilité y a beaucoup d'infertilité masculine dafa bëri léegi wax dëgg yàlla ndax jigéen léegi ñoom ñoo ëpp santé sexuelle ko góor ñoom dañuy xool seen bopp xam donc pour vous dire kon donc góor tamit soo amee sa jabar nga gis ne affaire am doom am problème pour jàpp ni si moom si moom la nekk. Mhm. waxal jàppale ne docteur nee na suñ jëlee suñ ko defee ñeent pàcc benn pàcc bi ku jigéen ki la beneen pàcc bi si man la beneen pàcc bi si ñun ñaar la. beneen pàcc bi mooy boo xam kenn xamu ko dañ koy dem saytu donc loolu toujours loolu mooy infertilité kon donc c' est pas l' affaire des femmes ni des hommes mhm. mais c' est l' léegi-léegi mhm. jigéen ñi damay wax di tooñ man leen waaw ma ne seetlu leen bu baax <laughs> jigéen bi soog a sëy ak jëkkëram bi ñu waxee les moments idylliques duñ def dara seen kanam mm. parce que boobu dañuy respecter procédure yëpp ba egg si sëy moom mooy préliminaire dañ koy respecter mm-hmm. soo seet leen seetloo bu baax li may tooñ jigéen ñi man leen loolu soo xoolee jigéen ñi am yenn at la trentaine la kat xaw a yàgg sëy ñoom ñoo koy utiliser pour mottaliku complément voilà parce que dañuy dem ba benn moment sëy soxna Fatou ay étape la mm-hmm. préliminaire c'est un déterminant si sëy ndax yaram góor ak yaram jigéen nu bindoo bokkul mm-hmm. jigéen ko góor fa nga am sa jotu jabar pour mën a pour bu mën a dérouler comme nu war a dérouler góor moom jarul moom yaakamteeg yëpp la yemale kon donc bokkuñ niñ bindoo jigéen yooyu su ñu ba benn instant la routine li la routine ba yàgg dëkk day rey lu bëri. Mm-hmm. su ñu ba rey lu bëri finalement ku jigéen ki du gisaat boppam si sëy bi. Mm-hmm. du gisaat si boppam moom mooy tax après day wut ay complément additif. Mm-hmm. mais xaar ma jënd lii ma def li sama kanam et cetera et cetera peut-être day tax sama jëkkër lu mu meloon bu njëkk mu melaat noonu. voilà mais waa ji soppeekuwul benn yoon. fa ngeen doon jaar su ngeen fa doon jaar ba léegi lu fa nekk ba léegi moo ngi yooyu. soxna Fatou wax naa la sànq mu ne jigéen gàncaxam dafa am bindoo dafa nekk en équilibre su su su amee feebar rek yow yaa ci boole lu ci bokk. Mm-hmm. jàppale phrase boobu léegi. Mm-hmm. waaye léegi yow nga dem jël loo xam ne bokkul si yow xamoo composition bi xamoo nu bindoo nga jël def ko si kanam. soxna Fatou donc yaa ngi lor sa bopp. si mm-hmm. loo xam ne yow xamoo ko wala da ngaa dégg rek ne baax na. je pense que loolu jigéen ñi dañ kaa war a éviter mën ñu kaa mënuñu leen kaa tere nag xam nañ ko mais nañ ci gën a am taxawaay nañ ci gën a bàyyi seen xel di dem seen médecin surtout mhm. mu leen di xool mi mhm. jox benn exemple soxna Fatou boo xam ne ñoo ngi waaj dem euh, ñoo ngi waaj dem euh, région de Sédhiou pour def étude bi am naa du yàgg dara léegi ma dem jigéen ñi tabaa la def seen kanam taba taba cigarette. fooy fooy fooy waay fooy tabac séju donc ñu ngi fay waaj pour def benn étude pour xool mm. dañuy jël tabac boole ko ay produits yoo xam ne xamuñ sax composition ñuy def dafa am suul dafa am leneen imagine yi nga jël xobu tabac nga dëbb ko boole ko leen leneen def ko sa kanam mm-hmm. ba leen ba bañ leen xawee laaj tuuti liñ ñu wax mooy sooy utiliser feuille de tabac sa kanam doo amaat envie góob c'est-à-dire loolu da ngay am autosatisfaction. ok est-ce que ngi dégg dool mm-hmm. c'est en fait y a composante anthropo-sociologique. Euh, mm-hmm. bu importante ba ñu la dox ngeen def loolu ñëpp parce que seen jëkkër dañuy am ñett ba ñeenti jabar donc pour gis leen day xaw a. day jafe surtout yow soo nekkee aaw bi da lay xaw a. del bàyyi da lay xaw non du la du la abandonné. voilà c'est que. du la délaissé c'est que lu ngeen meloon bu njëkk doo leen mel noonu. surtout si sur le plan de la sexualité donc femmes yi gisee loolu. ñu gis ne effectivement que loolu day benn du aphrodisiaque day da da da da dañ ciy gis seen bopp. Mm-hmm. dañ koy utiliser lu bëri te mu ngi def ay loraange yoo xam ne yàlla xam ne parce que on sait que le tabac cause avérée de cancer. Mm-hmm. moo tax ñoo ngi bëgg a dem foofu pour def benn étude def corrélation entre l'utilisation du tabac en intravaginal et la survenue des cancers génitaux à savoir cancer du vagin cancer du col ou bien cancer de de l'abdomen. Mm-hmm. Mm-hmm. donc soxna Fatou loolu lañ ci am liñ ci ne li utiliser. Mm-hmm. Euh, euh, donc euh, mun nañ jàpp ne wax nga ko exemple bi nga joxe moom mooy utilisation wu tabac yi ñenn ñi di utiliser ngeen xaw a def corrélation bi ndax c'est aussi valable pour yeneen yi lu ci mel ni ay montre wala gingembre entre autres ndax relation de cause à effet produit aphrodisiaque ak cancer du col de l'utérus ndax euh, am na am na similitude. waaw loolu lu ñuy wax toujours rek damay ñëw toujours si lu mu la wax toujours lu normal li rek mooy soo yàqee lu lay protéger ñu boole ci leneen. Mm-hmm. ba mel neneen wax naa toujours buntu bu buntu bu tëjiwul lu ko neex moo fiy dugg te chlamydia moo la wax noonu c'est des infections intracellulaires. Mm-hmm. te moom cofacteur la.

xel nangu na effectivement mën na joxe cancer wala mën na favoriser la survenue des cancers gynécologiques. Mhm. Mhm. Euh, ci wàllum euh, sexualité ndax amul lu mu mën a jural comme conséquence aussi bien ci ku góor ki ku jigéen ki hormis jàngoro yum ko mën a jural bien sûr. voilà loolu lu mu li muy jur looloo gën a bonati soxna Fatou. Mhm. li ñuy woowee déviance sexuelle. maanaam. déviance sexuelle mooy nga dem ba yow sa partenaire tant que dafoo lii doo si gis sa bopp. gën a bonati. déviance sexuelle mooy da nga yow sa partenaire yow yow tant que yow defoo li nga def nii yow mi jigéen doo yëg sa bopp. Mm-hmm. xam boobu moment boobu yow nekkatoo lu naturel. danga foog nga am loo yokk si yow pour a sa bopp. Mm-hmm. te déviance boobu moo gën a parce que loolu li muy waral mooy tax yow sa satisfaction doo ko mën a amaat sa jëkkër donc da nga koy wut si produit wala wut ko feneen wut ko feneen te vraiment loolu ci dañuy ñaan jigéen bi ñu éviter loolu. ndax mm-hmm. soo gee étape boobu vraiment étape bu nakkaree euh, dindi la. déviance sexuelle boobu. Mm-hmm. je pense qu'on est confronté réellement à ce problème maintenant avec jigéen di lu bëri lañu jël def ko seen kanam ba finalement seen sexualité day per day day day day perturbé mhm. euh, docteur Diarra ndax euh, dañuy faratal di sensibiliser vraiment cancer wax nañ ko cancer au col wax nañ ko mais est-ce que euh, dinañ xaw a mettre un tout petit peu l'accent justement par rapport ak yenn produits yi seen dangerosité ak seen toxicité vraiment par rapport ak jigéen ñu ngi koy utiliser mhm. donc je pense que produit boo xam ne càmbaroo ko soxna fa dama la koy wax toujours loo xamul pour tënk wax ci loo xamul bu ko loo loo xam ne leer lu woo ko ba mu leer mm-hmm. bu ko pour tënk jigéen ñi loo xamul boo ko def sa kanam mm-hmm. loolu leerluwul boo ko def sa kanam ndax borom bi def na sa kanam lépp loo xam ne mat na ndax kenn gën kaa mat mm-hmm. def na ci lépp loo xam ne mat na donc jigéen ñi lu may wax toujours am euh, du mu dugg seen intimité. Mhm. mais borom borom bi jagle leen loo xam ne li ñu mën a def ba vraiment ba mën a gis seen bopp seen sëy te vraiment te duñ sonn. Mhm. mais aussi ndax euh, jàppaloo ne la société comme nu ma koy waxe la société elle est au début et à la fin de tous diw mu ngi def lii war naa ko def wala diw jëkkëram wax na ko lii man tamit dinaa ko def aussi tamit foofu ndax jàppaloo ne aussi aussi ci côté ku góor ki ci côté ku jigéen ki war nañ ci di mën a waxtaan parce que il y va de leur santé pour le bien-être du couple bien sûr bien sûr lu nga wax noonu lu solo la je pense que tey am euh, mën nañ wax ne tey vraiment euh, pratique yu bëri moo ngi commencé changé ndax ah. xale yi léegi ñoo ngi ko euh, li may wax toujours xam day pousse lëndëm vraiment je pense xale yi ñoo ngi gëstu comme tey émission yi ngay def nii day leeral xel yu bëri day jàppale ñu bëri seen si seen vie de couple day di jàppale si seen seen si seen si seen comportement mm-hmm. jàppale je pense que tey loolu mooy seen rôle tey mm-hmm. société bien sûr comme on dit toujours dañoo mën suñuy pratique yoo xam ne parce que on ni wax toujours la nature a horreur du vide xam-xam fu mu nekkul rek préjugé moo fay nekk. Mhm. xam-xam fu mu ñëw rek day pousse pré day day day pousse préjugé. Mhm. yu bëri di femmes yi di wax di wax sama wujj def na lii def na lii def na def na lii amuñu lenn lax loolu dëgg la ndax xam nañ jigéen moom sagu rek moo fi nekk. Mhm. mën nañ kaa bañ a def sax na manqué def. yow nga dugg ci ba lor sa bopp. donc je pense comme soxna nu nga fàttali nu ko waxee l' éducation sexuelle dafa war a commencer si parent yi d' abord parents yi ñoom mii xëy am ci kër xam lu bëri. ñoom ñoo war a jàppale seen doom si yu bëri nag lii ngay lii lii ngay dégg nii baaxul lii boo ko def defal nii defal nii yóbbu ko si médecin mu koy conseillé su ko defee dina gis boppam si si si si si si si na gis boppam si jëkkëram te tamit na aar boppam si feebar bëri yi fa nekk tey ndax cancer tey toll na foo xam ne vraiment je pense que ëllëg na xel yëpp vraiment lépp loo xam ne la koy mën a jox rek suñ ko mënee bàyyi daal moo gën si ñun gën tamit si jigéen ñi. Euh, sauf que xam naa éducation sexuelle du du yomb ci suñu société bi ñu ngi ko formaté yàggul dara ah. waxoon nañ ne am na benn programme boo xamante ne dañuy dugal la santé sexuelle à l'école dañ koy jàng économie familiale sax mais vraiment euh, connotation buñ ci def am na wala amul c'est juste pour dire que l'idéal euh, moom moo doon ñu tata ñu tàggat xale yi dès le bas wax leen bu ngeen di màgg lii ak lii ak lii mais suñu société bi vraiment dafa mettre ay garde-fou ci lépp lu jigéen ak góor loolu du du du du lu beesan ah. ñëpp xam nañ ko dañuy def euh, benn suu rek wax ci li nga xamante ne moom moo di la si le le le cycle cycle menstruel moom mooy le cycle menstruel de la femme ñu bëgg a xam rek euh, docteur euh, loolu dafa bokk ci dunduñu xale bu jigéen bi duur muy am at benn processus bu xaw a yàgg la ba muy dem ci ménopause mais ñu bëggoon xam rek ndax dafa am benn hygiène intime boo xamante ne xale bu jigéen war na ko am laata muy gis mbaax ak tamit bu gisee mbaax naka la war a comporté woo. soxna Fatou je pense que question bu am solo la loolu je pense que ñëpp la intéressé ça interpelle tout le monde mhm. la gente féminine xale yi mag yi. Mhm. parents ak tout le monde. <clears throat> il faut savoir comme lu ma waxoon sànq jigéen su commencé gis mbaaxam yaramam day soppeeku dafa am ndox bi génn ci moom boo xam ndox bu normal la. Mhm. ak ndox boo xam ne soo ndox bu anormal la donc jigéen normalement. sa ndox boobu ngay gis si yow loo xam ne amul odeur amul dara ngay jël ndox kese ndox kese di ko raxasee sa kanam doyoon. Mm-hmm. sans saabu sans dara jarul additif. Mm-hmm. man euh, dañ koy wax si médecine ñu ne jigéen boo xam ne day gis ndox bu bëri ça montre qu'il y a une hyperactivité de ses hormones. Mm-hmm. c'est-à-dire kon kooku hormone am yi doy na doy na sëkk. moo tax mi gis loolu. donc vraiment comme on dit c'est bon signe de de hyperactivité hormonale. donc tu vois que déjà c'est pas mauvais. Mhm. mais nag ça peut déranger jigéen tam ñi jàpp ni lu may wax toujours ndox dafa am ndox bu bokk si ñoom te chaque femme a son odeur donc hygiène bu bëri bi yaa ngi lor sa bopp. Mhm. donc ndox kese doy na soxna Fatou. Mhm. soo gisul sa rek maintenant nag li may wax nit jigéen ñi lépp lu dugg si yow wala ci wala lu génn si yow war yo nettoyer donc lépp lu génn si wala lu dugg si yow war nga nettoyer yow nettoyer yow moom mooy am na corps étranger bu dugg si yow wala am na corps étranger bu génn si yow wala mhm. Mhm. corps étranger bu génn si yow moom mooy menstru règle yi mhm. moment boobu c'est normal nga def sa toilette intime raxasu ba set pour mën a jàll si leneen mais su weesoo période boobu soxna Fatou ndox kese c'est suffisant ndox kese nettoyer avec de l'eau simple je pense que ça loolu c'est suffisant wax naa tamit moom avant ñi gis seen règle am na période boobu ndox bi day gën a bëri ñu jàpp ni loolu c'est normal suñu paree gis seen ndox bi day ñëw c'est normal ndax day mm. raxas ñu jàpp may mois boobu mën nañ def seen bain intime tamit nit ñi nekk en période préovulatoire dañuy gis ndox boo xam ne day mel ni laalu mm-hmm. lu ñuy wax c'est c'est c'est mm-hmm. noonu lay mel ñu xam ne loolu tam c'est normal mm-hmm. jarul ñuy inquiété wu su weesoo loolu nag su nekkee gis nañ ndox bu génn seen kanam mu ànd ak beneen signe mu am leneen lu ci yokk wokkute xasan ngay saw mi tàng wala leneen boobu kat daawal dem si kër docteur nga xam ne lii bokkul si yow kër docteur am si taxawaay bu ci war. Mhm. Mhm. Euh, docteur gis nañ ne jigéen ñi yu ñuy faratal di utiliser comme coton wala comme serviette hygiénique dafa xaw a bari ah bari na bari na bari ñu bëgg a xam ndax am na ci boo xamante ne par rapport ak euh, composant wam mën na ko jural euh, source d'infection parce que on a comme l'impression que dafa bari marque bu nekk am ndax ñoom ñëpp ñoo am même même même même importance bi. ah donc yaa ngi si qualité serviette hygiénique yi. Mm-hmm. donc la qualité de ser euh, des des des serviettes hygiéniques bien sûr xam duñ dugg si publicité bi bii voilà parce que c' est c' est des c' est mm-hmm. foog ñu jigéen ñi xam ne ni te nga jamonoy maam soo demee ba toll gis say mbaax sa yaay di dagg benn morceau benn morceau mm-hmm. jox la ko. sooy conseil gis rek moom ngay utiliser mhm. so paree fóot ko ba mu ko ba mu fóot ko ba mu ba mu set mhm. nga weer ko passé ko mhm. imagine ñoom loolu lañ doon utiliser pendant ay années yu bëri te mos ñu jàkkoonteeg yi ñu jàkkoonteel leen donc parce que lu mu la waxoon sànq rek mooy ñu bàyyi si xel ñun suñu comportement sexuel moo soppeeku suñu comportement sexuel moo soppeeku dañu dañ see boole lu bëri lu ci bokk mais suñu yemee comme fi yem ku jigéen ki nga am benn partenaire partenariat bi pour ba ñu mhm. dugg si yooyu yëpp mhm. da ngay gis ni effectivement kon ñun ñoo soppi suñu doxalin serviette hygiénique yi effectivement tant que c'est aseptique mhm. c'est-à-dire que nekkul luy indi microbe si yow rek. Mhm. warul mun a poser problème. Mhm. je pense que loolu moom c'est clair et je pense que ñoom ñoom ni ñu koy defaree aussi dañ koy defar telle sorte que vraiment doo microbe bu ci nekk mhm. wax euh, ñu doon euh, ñoo ñoo doon joué doon joué yenn rôle yi mais boobu dafa fekkoon amaanaam certainement ñuy seetlu seen xale mais guddi yi ñu toll am na ay xale yoo xamante ne dinañu gis seen règle sax premier ba deuxième dañuy préféré wu génn parce que euh, au sein de la famille katagul luñ leen sax ci boo amee benn âge bi am na benn chamboulement boo xamante ne di nga ko nemmeeku te bu boobaa di nga waxtaan ak sa yaay. a <laughs> ah, soxna Fatou waaw xam naa moom comp euh, éducation sexuelle fan thème la dañuy dañ koy dañ koy jël thème à part mm. ñu wax ci bu baax a baax a baax ñu xaw a concentré aussi euh, infection génitale sexuelle tout en sachant que mënuñu leen séparer. Mm-hmm. mënuñu leen séparer ndax bi ça implique l'autre mm-hmm. tout à fait mais éducation sexuelle dafa nekk thème boo xam ne dafa yaatu. dafa complexe. culture bu nekk ak éducation sexuelle am tey soo jëlee culture mandeng soose balante alpulaar ku nekk ak éducation sexuelle mm-hmm. nga jigee foofu nga jël noir yi jël tubaab yi jël asiatique jël keneen ku nekk si éducation sexuelle. Mm-hmm. ku nekk dafa bokk éducation d' abord culturel. c' est d' abord culturel voilà mm-hmm. lu mu mënta nekk culturel dafa am lu ñuy toujours dafa loo xam ne culture am na lu ci baax am na lu ci baaxul. suñu objectif moom mooy amener les gens sans ñu bàyyi seen culture. ñu bañ am ay problème mhm. dans leur vie sexuelle ñu loolu seen objectif donc dàkku ñu benn culture mhm. mais quand même seen objectif mooy encadrer ñëpp ba vraiment luñ ciy bañ mu mu bañ a am si ku ne loolu moo tax ñuy ñaax femmes yi ne leen effectivement on n'est pas contre votre culture mais on est juste là pour vous accompagner dañu dañu di gunge rek mm-hmm. gunge ba vraiment seen vie sexuelle que vous euh, bu femme bi nekkee ci trois jours am wala flux sang flux deret bi bëriwul des fois dañuy préférer def ay relations sexuelles docteur foofu ñu bëggoon xam rek ndax amul ay conséquences sanitaires yu ci mën a Euh, jógee surtout euh, du côté de la femme parce que apparemment ci fànn woowu elle est beaucoup plus exposée ah. bien sûr bien loolu lu wax dëgg la parce que foog ñu xam ne ni au moment de jigéen moment bi mu gis règle am dafa am lu ñuy woowee lu may écosystème dafa am lu ñuy woowee des bactéries anaérobies ak des bactéries aérobies moment boobu bactéries yooyu ñuy wax anaérobies dañuy bëri te loolu nu muy bëri noonu su ñuy damay wax toujours. flore bi gàncax si déséquilibré rek soo leen seey rek mën na yég si yéegee rek mën na indil femme ay infection yoo xam ne après ultérieurement mën na perturber mën na perturber fertilité mm-hmm. en plus règle dafa nekk loo xam ne bokkul si jigéen dafa war a génn parce que li ñuy wax règle c' de grossesse te ce ce ce ce boobu dalaa laa pour nga jël ëmb jëloo ëmb mu nekk deret bi génn nekkul deret nekkul deret bu baaxaat donc lu baaxul est-ce que war nañ say sëy xam lu baax ak lu baax ñooy ànd mais lu baaxul est-ce que war nañ say sëy non waruñ say sëy parce que nekkul loo xam ni lu li génn la parce que su baaxoon dee des ci yaramam mm-hmm. mais lu baaxul la moo tax muy génn moment mi génn nekkul lu baax moo tax jigéen tamit le plus souvent dañuy jël seen distance moytu protéger wu et cetera et mm-hmm. soit la cause nag ak lu munti demee dañuy wax toujours je si yëfu si mm-hmm. si diine si bi nangu ne ko la nangoo ko mm-hmm. je reste foncièrement médecin voilà je reste foncièrement médecin pour nekkul lu gën un si femme bi parce que damay wax toujours moment la boo xam ne germe anaérobie yi dañ ciy nekk suñ si nekkee kon mën nañ flore bi dafa perturbé wu su mooy gàncax yi xaw na jaxasoo il faut que règle yi ba set ndox bi raxas ko pour gàncax bu na normalaat mhm. donc moment boobu gàncax bi jaxasoo na imagine ku góor ki mu am infection moom tamit boole ci mhm. donc yow gàncax bu lay protéger déséquilibre jaxasoo na ku góor ki indi benn infection boo xam ne infection sexuellement transmissible la est ce que gàncax mën na laa protéger du la protéger mhm. facilement nag ngeen am rapport sexuel lool loolu plutôt daal di yéeg ci kaw nga jaaree fa sa biir metti nga jaaree fa mënoo am doom nga jaaree fa nga jaaree nga jaaree kon nag vraiment nekkul nekkul lu ñuy souhaité mhm. c'est pas tout souhaitable et c'est pas tout recommandé di mhm. sëy au moment boo xam ne da ngay gis say mhm. Euh, docteur Diarra mu mel ni waxtaan wi am na solo waaye li ñu sëraloon ci waxtu wi daanaka yegg nañ ca voilà euh, soxna Fatou damay tënkee ci benn mbir damay wax toujours mooy nan la ñuy xamee ne effectivement damay wax toujours infection loo xam dafa Euh, euh, dox boobu di génn kanam jigéen mën na nëbb feebar yu bëri feebar bëri médecin mën na see jaaree rek xam na am am nga beneen feebar mm-hmm. par exemple tey sooy jël nga ñëw am tey ay infection te docteur xam na day laaj ndax yaa jël ay antibiotique am na garab yi am na am na antibiotique yu fort yooyu jël mm-hmm. moo xam effectivement am na kon donc lii mën na la kaa jox gor ëmb ëmb rek xam nañ ne ëmb day perturbé flore bi su ko perturbé nga commencé moo jigéen ba dañu am ay perte Mm-hmm. perte yooyu nañ xam ne du dara c' est seen gàncax bi moom moo perturbé wu mm-hmm. donc infection bu ci mais boo xam ne suñu joxee garab mun na bàyyi loolu jarul ñuy stressé mm-hmm. wax naa la sànq stérilé bi tamit mun na kaa joxe aussi docteur bi ñoo xam ne stérilé la dèjà yow yaa ngi def planning pour aar sa bopp fekk yaa ngi lor sa bopp donc infection moom moo koy wane mais également infection mun na wane ne yow am nga jabet infection rek nga ñëw am perte médecin mu xam ne effectivement mu dem ba ci ginnaaw infection bi ngay faj du ngay faj du wér ngay faj du wér mu def test diabète mu mu mu yooyu effectivement baa tax nangul équilibré wu. mën na wane effectivement que da ngaa immunodéprimé immunodéprimé mooy da ngaa feebar yu mel ne HIV wala cancer et cetera et cetera donc ngeen gis simple perte médecin bi nu mu ko mënee exploité ba gis sa beneen feebar boo xam ne. da la si mën a faj pour nga mën a nekkul lu mhm. nekkul loo xam ne da koy am toog sa di wax noo lii day jàll mhm. parce que yow mii di xamoon ndax loolu yëpp moo ngi mhm. na jël aussi ñu bàyyi xel aussi multipartenariat ba nga koy wax toujours jigéen soo changé amee perte rek bàyyil xel est-ce que nekk ma ma ñaar wala ñetti copain wala changé ma partenaire donc xel aussi donc finalement bu voyez kon dox bii gën si kanamu jigéen am na bu baax am na bu bon itam mën na wundu feebar bëri si ginnaaw moo tax te yow feebar yow mi toog nga foog ne wér nga fekk am na lu nekk si yow loo xam ne soo toogee lu yàgg mën na laa faagaagal mhm. donc li ñuy wax soxna Fatou en conclusion moom mooy infection génitale infection euh, nu nga koy woowee léegi mën nañu koy wax infection génitale haute ou bien infection ou bien infection sexuellement transmissible mhm. bu ci mënti doon je pense que jigéen dañ ceer war a seen xel bu baax. docteur dogguma sax ndax dafay nécessité ñu poser benn diagnostic pour mun ko détecter. bien sûr day laaj day day laaj diagnostic bien sûr. Mhm. su ñu docteur da lay xool interroger la laaj la xool perte bi na la mel xool couleur bi. Mhm. xool signes yi pour mën a xam effectivement que lii bii la gën a méngul. Mhm, bii la gën a méngul même su nekkee amagoo jëkkër la ah madame ba ma gis nii bii la méngul boo xam ne suñ ko fajul ëllëg ci biir doo mën a am doom. yaa ngi dégg mu defal la lu ñuy vaginal jël prélèvement endocol bi mooy ci biir médecin xam nañ li may wax mm-hmm. su defee prélèvement mooy clame ak micro ak euh, mycoplasme su ko xoolee su positif mu defal la traitement mm-hmm. defal traitement mu ne la même su nekkee amoo ay perte mais le fait que sa nakk doon metti noonu le fait que sa nakk rek doon metti kese rek mm-hmm. soo toogoon tuuti rek lii jox donc tu vois que finalement docteur moo la mën a dimbali si sa kaaraange yaram ba vraiment lu la ci fekk di leen te suñ tollee fenn seen yaay tam yéen di ñaax leen dolli ñaax di leen seen doom yi ñuy xool seen yaram parce que loolu lu importance mooy seen kaaraange doom da ciy nekk également ngeen bàyyi xel ne ëllëg bi jëkkër aussi ay ñàkk am doom li bëri yëpp mën na see ñàkk incha allah. a mën a teel a euh, bien sûr donc nit ki toujours comme bépp feebar rek fe bépp feebar soo teelee dem dama koy tooñee nit yi toujours ma ne man damaa bëri malaata naar ma mos a xëy benn naar yi yéen lu tax ngeen bëgg hôpital naar bi na feebar ñaar la soit yow yow yaay jub yóbbu ko hôpital bàyyi ko foofu mhm. la feebaru yóbbu la hôpital bàyyi la foofu mhm. donc loolu ñëpp nañ ci seen xel mhm. donc feebar toujours yow da ngay mel ni nga xam ne da ngaa nekk si benn environnement boo xam ne dafa bëri microbe yi mhm. a a yàq mhm. mhm. da ngay bàyyi xel ne man je suis da ngay exposé donc lépp loo gis lu bokkul ci yow rek dawal bi a a a euh, loxo docteur bi yow nga ñibbi ci vraiment avec ta santé maa ngi la sant euh, gërëm ko bu baax a baax moom euh, docteur docteur Cheikh Ahmed Tidiane Diarra fàttali ne nekk na gynécologue obstétricien waaye chirurgien cancérologue mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi doon teewlu seen émission bii di SOS santé tey nag SOS santé comme ni mu leen ko waxee docteur Cheikh Tidiane jara lañ ci doon dalal mu dellu ci bu baax a baax ci jàngoro yi ñuy duppe infection génitale haute ak yi nga xamante ne lépp lu wàllum soxal lépp lu jëm ci wàllum infertilité xaw na ko laal tuuti mais tamit di ñaax euh, suñu soxna yi ñu gën a def très attention par rapport ak yenn produits yu ñuy utiliser pour agrémenter seen vie de couple yu bëri si yenn produits c'est euh, cancer dafa am a source cancer bu weesoo loolu aussi mën na leen jural ay infection yoo xamante ne mën na leen euh, tere vraiment ñu am doom wala bu ñu ëmbee ëmb bi day nekk ay ëmb yuy tuuru mu mel ni lépp li nga xamante ne dañ koy faratal di utiliser pour agrémenter néegu sëy wet bañuñu ko mais apparemment war nañu xoolaat bu baax a baax ndax composants yi des fois c'est ce qui fait défaut ndax lu ci bëri ci ñoom dafa am ay toxique ak loo xamante ne vraiment mun na leen euh, gàllankoor ci seen processus fàttali ne Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité